semaine bii passé ah? euh, moom Aristide Gomes moom Gomes moom nee na seet si na ko semaine bii passé donc moom Aristide ñëw na ci siège Africa Jom Center ah semaine bi voilà d'accord alors Mame Birame ban lecture ngay def ci audience boobu <laughs> waaw lecture yu ñu ci mën a def euh, bëri na mhm. je pense que am na yu bëri lu ñu ci jot a wax mais euh, dans tous les cas am na si loo xamante ne ni dama jàpp ne bu ñuy analyser rencontre bu demee nii mhm. duñ ci mën a ñàkk bàyyi xel oui mooy la personnalité de Embalo. Mhm. Pape Sané am na lu mu si wax. ak foto Macky Sall bee ci kanamam. Euh, euh, am na lu mhm. euh, wax tuuti mais xam nga Embalo moom ku bëri pexe la. Mhm. ñu ne sa yaay d'origine malienne la sa papa burkinabé la yaay président Guinée-Bissau loolu ku bëri pexe moo ko mën a ne doon mu nekkoon dans le passé le chargé. Euh, chargé diplomatique de Nino Vieira daan ko demal fu bëri. en mhm. Afrique de l'Ouest donc mun nañu wax ne ku xam la sous-région la mhm. la sous-région euh, surtout ouest africaine mhm. bu rencontre bi amee euh, mu seppi Ousmane Sonko parce que bu nekkee ne dañu wax ne ci crise bi passé ci la ñu fondé wu pour rencontre bi am dama jàpp ne bu Ousmane Sonko di dem di ko seeti du ànd ak ay El Malick ak ay basiru jomaay ay Khalifa Sall lay àndal ay Habib Sy mais il est parti non pas ak Yewwi mais hmm. ak Pastef. ak Pastef eh, ci li ma gis c'est bon à signaler. loolu c'est parce que waa rek fa nekkoon ah ci li ma gis. c'est important. Hmm. léegi lu tax moom bu ne le principal opposant maanaam ab débat boo xamante ni à un moment donné au Sénégal amoon nañ ko. mooy hmm. ku nekk le leader de l'opposition. tey jii nii moom de son point de vue jox na Ousmane Sonko gëdd boobu. def ko le leader de l'opposition maanaam celui qui empêche de tourner en rond. au Sénégal. léegi bu amee mu crédibiliser ko noonu def ko le chef de l'opposition qu'est-ce que Ousmane Sonko moom lan la koy jox parce que la mm-hmm. position inconfortable mooy mm-hmm. un président de la République d'un pays euh, frontalier avec le Sénégal mm-hmm. mënul wax ne daf la soxla nga ne doo dem doo ko mën doo ko mën d'autant que kooku mooy président en exercice de la CEDEAO donc Ousmane Sonko en quelque sorte mën nañu wax ne il était tenu d'y aller. mais bu demee waxtaan ku mel ni Mballo. Mhm. lan la fa mën a bàyyi. man dama jàpp ne bu ñu waxtaanee te Ousmane sonk lu mu résumé ci page Facebook am bi mu ngi naan. Mhm. discuter nañ ci préoccupation pays yu bëri. Mhm. tout dans Sénégal. fi mu toll nii suñu préoccupation majeure mooy lan. xam nga bu um, Mballo dégloo Ousmane Sonko muy wax ses positions. il peut savoir ki mu am ki mu nekkal nii en face. est-ce qu'il à céder ceci mhm. est-ce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout est-ce que combat bi muy mën dina ci dem jaral na ko lu ne xam nga état d'esprit boobu day baax mhm. tamit ñu wax ko président de la république ku mel ni Macky Sall nga xamante ni day xam léegi mhm. comment réfléchir son principal adversaire Mm-hmm. ah mais bien sûr. parce que cela veut dire que ni même bu Ousmane Sonko waxul Mballo ne ko waxal lii ak lii ak lii Macky Sall le fait que de l' le fait de mu wax moom Ousmane Sonko rek Mballo xam na lan lay waxee Macky Sall. waaw ah, bien sûr xam nga. la waa ji nekk. ci mm-hmm. mm-hmm. euh, exemple rek laa joxe nag ah, rien de concret. mu ne ko ci euh, par exemple législative yi nii. Euh, on accepte mun nañu accepter après député yu ñuy am booloo pour ñu. armis amnistier kii wala ñu amnistier kële. Mhm. xam nga loolu par exemple c'est une idée. Mhm. <laughs> loolu bu ko waxee le président Macky Sall xëy na moom information boobu dina am nu mu ko utiliser donc loolu c'est un exemple. Mhm. parmi tant d'autres yoo xamante ni mën nañ ko joxe mais dans tous euh, man dama jàpp ne képp ku mën a nekk président de la République au Sénégal. il faut que nga am. des relations particulières ak Guinée. ak Guinée ce pas par hasard ce n'est Embalo euh, ko falee février deux mille vingt quelques mois ñu teg ci Sénégal ñu ne may na euh, Guinée Bissau trois ambulances. Mm -hmm. <laughs> donc quelque part ñu euh, euh, Sénégal di doxee. comme mhm. si. parce que bu ñu nee conflit Casamance bi à un moment donné am nañ ci ay résultats yu positifs. c' mhm. parce que état du Sénégal dafa collaborer ak autorité Guin Bissau guinéenne mhm. donc moo tax ma ne président bu nekk di bëgg a am di nga a am relation. Mhm. particulière ak président boobu. Macky Sall nag <laughs> Pape Sané junj na ko sànq parce que à un moment donné bi muy nekk dans l' opposition. Embalo moom moo doon représenté la principale compagnie eh, d' investissement bu Libye. Mhm. dans la sous-région. moom Embalo mi. moom Embalo mais bien sûr mais xam <laughs> nga ah dama daan boole ni mais <laughs> il est il a une très grande expérience. du point de vue diplomatique dans la sous-région. Mhm. mais du ci moromu. Macky Sall l'homme à tout dafa am dafa am jaar jaar bu baax a baax. donc euh, kooku euh, pour man. Mhm. Euh, discuter ak moom. xëy na mën na am avantage yu. dans tous li ma jàpp mooy que. Euh, Ousmane ko xëy na waa ji yëkkati ko def ko euh, comment dire. Mhm. Euh, le oui. leader de l'opposition sénégalaise. mais dans tous les cas moom tamit dina jox. oui information. justement Mame ma euh, on a toujours déploré ici euh, même Alioune Tine mas na ko wax le fait que la classe politique bu Sénégal duñu ñu wax. Euh, euh, du ñu wax waa yeewi ñu nga fële waa wàllu ñu nga fële waa bennoo ñu nga fële Macky Sall du leen recevoir du wax ak ñoom et on a dit ici que ni li daan tax Abdou Diouf par exemple ak Abdoulaye Wade seen ay relation lu mu daan métti métti y a comme le disait euh, Babacar Hussein Ndiaye des plages de convergence yoo xam ne parfois ñu mën ci waxtaane y avait quelque chose qui manquait mm-hmm. tey ji est-ce du loolu la loolu la def c'est-à-dire que euh, même bu fekkee ne Ousmane Sonko Macky Sall Khalifa Sall euh, ak ñeneen ñeneen du ñu toog ñu waxtaan mais au moins y a boo xam ne mën nañ wax ne fii mën nañ fee jaar pour que su Bachir waxee mu àgg ci nopp euh, Mame Birame Wathie par exemple. Euh, xam nga. Moustapha mhm. Sànq dama ne Embalo euh, en tant que président. Mhm. d'un pays boo xamante ni dafa dend ak Sénégal mënuloo Ousmane Sonko ne dama bëgg une rencontre ak yow. Mhm. Ousmane Sonko ne du dem. de la même manière aussi ma jàpp ne. xam nga depuis 2012 à maintenant benn yoon du ma wax sax 2012 même bien avant. benn yoon laa dégg ñu ne. le Sénégal est en guerre te kooku c'est le président Macky Sall qui l'avait prononcé. ci Covid ba ba mu waxee loolu. je mm-hmm. pense que ba mu tàllalee loxoom les principaux opposants ñoom ñëpp def nañu le déplacement. Mm-hmm. dem wuyu ji ko au niveau du palais. Mm-hmm. mais man dama jàpp ne même au-delà du fait que ñu ne ñu ngi en situation de guerre tey jii nii bu ñu nekkoon. une situation boo xamante ni ça comme comme ça se passe actuellement. xam nga mhm. wax nañ fay def nañ fay émission ma ne. Mhm. li nga xamante ni moo war et c'est ce qui se passe partout ailleurs. gis mhm. nañu ne y a des difficultés yoo xamante ni ñu ngi ñëw parce que situation bi ku ko gis nii xam ne bu ñu demee tuuti. prix dinañu gën a yokku. mu nekk denrées yi mu nekk euh, carburant et autres mhm. donc day baax benn instant ñun ñëpp ñu ànd booloo pour que les défis yi nga xamante ni mooy ñëw ñu mun ko gérer ndoo ensemble mhm. mais on a vu loolu amul mais dans tous les cas li ma mën a wax mooy que rapidement ñu daaneel bu ñu toogee ba soxla mhm. un autre euh, pays ñëw di euh, comment di jéem a euh, boole ñi nga xamante ni ñoo nekk au Sénégal c'est mm-hmm. parce que c'est le président de la République qui le veut man dama jàpp ne bu ñu toogee par exemple ci élection yi nii mm-hmm. ñu ne euh, dem nañu ba affaire jaxasoo on ne sait pas qu'est-ce qu'on si le président de la République prend de la hauteur mm-hmm. woo les principaux opposants je pense que ne dinañu ñëw ñu toog ñu waxtaan mais juste rek c'est oui. pour ce que Mame Birame a gis nga Adama baro bi muy préparer son deuxième mandat. Mhm. bi muy ut son deuxième mandat.